waaw Ousmane am na ñaan waaye nag ñi ko jàpp lekkunu ba suur ñoom nelawunu ba yendoo ndax xaw la sawar la ci seen biir loxo ñoo ngi ko yëg bu baax a baax jamono ji ñu toll bu baax xam nañ ko bu baax a baax kon jàpp nga ni balaa yàgg mën nañ koo bàyyi mu del dina génn ak bakkan ci lu gaaw insha allahu taala bu neexee suñu borom mu Sonko waaye ñi ma xam dëgg xam na ni du ma waxoon te it du ma wax mukk ci sama tey bakkan mm. déedéet dama bu fekkee suñu borom lan daan may ab jaamam moo koy may ba léegi Ousmane dana bokk ak njabootam añ bu yàggul dara. alhamdulilah. jërëjëf mbokk internet yi bu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam man ak waagaan ànd dem ba Thiès. seet góor yàlla di ñaankat waaye di doomi ñaankat di général Guèye moom sëriñ Assane Kane borom Nasru defe naa ni waxuma rek moom li mu doon waaye sëriñ Assane moom <laughs> Sénégal kenn dootu ko naa table ci xam-xam macha allah. tey nañu fas yéene waxtaanee actualité buñ ca jógee tab bi ci xam-xam. waaye di ñaan yow bi may seetaan suñu jotaay bi yàlla na fekk jàmm te bu la fekkee jàmm yàlla na nga jëflanteeg général général ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga nga nuyoog ngi lay seetaan sur Bipro ak Bourguel asalaamaaleykum Bour mhm. ñoo ngi ziara uh, adduna bépp di ziara uh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir mu yàgg fi loolu te di ñaanal mboolem xalifa généraux yëpp di leen dalal bu baax a baax mhm. yéen ñi nga xam ne bàyyi ko ba soow fekk na fii ci Thiès ñu leen dalal bu baax a baax di wax diaspora bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa mhm. général euh, balaa ñoo dugg ci ñaan dañuy dugg ci actualité li tax ma ciy dugg mooy ñaankat yi dañ ci dugg mhm. muy mbir Ousmane Sonko mhm. dégg naa du génnaa lay bàkkan ci kaso bi dégg naa dinaa ko génne juróom-ñaari fan dégg naa dégg naa dina nekk président 2024 du nekk maanaam coow li bari na ci surtout ci ñaankat yàlla yi Euh, président Ousmane Sonko li ko suñu borom teg nattu la. Mhm. nattu wàllu yi. Mhm. Sonko gënul yonent yàlla Yusuf. Mhm. gënul Ayuba gënul Moussa. baax gi baax moom te jubal moom jub gi mu jubal moo tax suñu borom jël lu ndaw teg ko ci kawam doxal ba xam loolu muy wax dëgg la am déet. dëgg la waaye app bu jotee suñu borom dina ko génne ci lu ndaw waaye nag suñ borom dafay indi ci alxuraan ay aay yoo xam ne bis boo ko jëfandikoo moom yàlla bàkk ko wóolu ko ñaan ko. jëme ko ci Seydina Ousmane ko tax xam yoon wa suñu borom mën na koo teg jafe-jafe yooyu ndax amoon na yonent boo xam ni ci géej gi la ne suñu hmm. borom dimbale ko ci laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin mu génn ca ndox ma mu nekkoon te mu ne def na fa ay at yu bari de hmm. gënal Ousmane Sonko hmm. loolu nag li ko daan maye di suñu borom jugu fi jeexu fi du jeexal te du xaajal dégg boo xamee nu nga ko waxee tax xam yoon wa boo ko ñaanee suñu borom jëmale ko ci Ousmane suñu borom mën na ko ci defal tawfeex. est-ce que ci wàllu taxawaayu ñaan yàlla jàpp ngeen Ousmane Sonko am na ko. waaw Ousmane am na ñaan waaye nag ñi ko jàpp lekkunu ba suur ñoom nelawunu ba yendoo mm. ndax xawla sawara la ci seen biir loxo ñoo ngi ko yëg bu baax a baax. jamono ji ñu toll. bu baax xam nañ ko bu baax baax. kon jàpp nga ni balaa yàgg mën nañ koo bàyyi mu dellu. dana génn ak bakkan ci lu gaaw incha allahu taala bu neexee suñu borom moom Sonko ah sëñ bi. waaw mhm. ah, man de say wax du ma ko du ma ko lam-lam ndax sañu ma ko ah wax dëgg yàlla. Mhm. ndax da ngay def ay résultat mhm. mooy li nga wax sànq juddu ci ñaan donn ñaan. xam ñaan ci ndey ak ci baay. donc yow doo fooy ñaan. wóor dinaa la wax benn waat naa ci màggug yàlla suñu borom du ma waxantu. bariwuma li may wax ci yenn yi di ko dugal ci réseaux sociaux. waaye ñi ma xam dëgg xam na ni du ma waxantu te it ma wax mukk ci sama tey bakkan. bu fekkee suñu borom lan daan may ab jaamam moom koy may ba léegi Ousmane dana bokk ak njabootam añ bu yàggul dara. sëñ bi. Mhm. ci foofu laay tàbbi barastiku lu ma wax sax seet. Mhm. loo seet kat gis kat foofu laay macha allah. Mhm. sëñ bi gis. waatul buyuti. min abwaabiha tey doo jëflante kenn. te jaar ak moom ci buntu boobu. wala la nga jëflanteeg nit ci buntu gisal ko ba noppi bàyyi ko mu dem. xam nit. dafa am ay nombre ñaan dafam ay nombre yu nekk yooy jaar ngir mën a xam nit ki. nekkul dama war a toog rek yor sama njaq saafara yor sama bik nga ñëw ne ma dama bëgg naa nga ma ñaanal déedéet rawxaan yi dama bari ci nit yi te wuute. nit ki war a xam rawxaanam xam xuddam bi. kon rawxaan bi ak xuddam bi du nu benn. nit ki bu ñu nelaw sax mën nga ko jàpp. dafa nit yoo xam ne pour heure nga leen jàpp. Hmm. bu fekkee mbirum nopp par heure nga leen jàpp bu fekkee nit koo xam ne yaa ngi bëgg nangam nangam mbirum Sonko par heure am na yoo xam ne par heure am na rawaxan yoo xam boo bëggee jëflante ñoom par heure la waaye dama ne doomu aadama warul ñaanal nit ki fixé tu la ko ba noppi ndax nit ki boo xoolee rawaxan bi duñ cent francs sax mën naa doon saraxam ñaar fukki dërëm ñaar fukki dërëm mën naa doon saraxam ci loo xam dana ko yóotu ay at amu ko waaye boo xamee rawaxan nit ki ñaanal ko day daal yomb seet nag ci baatab la yastaxlifannahum kama staxlafa allazina min xablihim hmm. amul luñ ci mën luñ ci mënta gis loo def tey boo xëyee ñu wan la ko incha allah loo def tey boo ñëwee boo ko ndékkee boo fi ñëwee midi ma wax la loo xëyee boo xëyee suba sa kër bàyyi fa dara boo ñëwee ci kàttanu suñu borom ma defee la ma def gis la nga mujjee yow la nga mujjee def boo ñëwee ma wax la ko doo ko dindi hmm. yàlla mi ma téem xam na ne ñi ma ci jaaral xam nañ ko <laughs> kii wax njëre njëre la de <laughs> daf leen dàkk de <laughs> doomi suñu asan kan la de borom nasru lu mu wax li gën a jafe gaañi mooy wàllu rab rab nag léeg-léeg ñu ko cat cat moom nee naa ko gaa yi yat nañ ko trop wala dañu bokk ni ñuy manifesté wala dañu bokk ni ñuy duggee xam nga danaa la wax benn affaire hmm. cat bu rayul day semmal day semmal noonu la ko war maa gën a bon ray nga cat ku mu jàpp dëgg nga dee hmm. wuti ci sax daf lay gënal xamul tax même gis nga rab mi lu ko gën a yées ci doomu aadama moom buur ñaata mais na barki démb dawal naa sama oto man dem Touba gis koo xam ni tabax na immeuble am ba cinquième étage te saa su xëyee suba tu bundu kër gi lay toog dafa yar mu neen Allah tubéy rek lay sol te moo la fa nekk ci millions yëpp moo ko fa def te lu mu fa def ci gàtt war naa mat cent et quelques millions hmm. am na ñu koy dëkkee cat am na ñu koy dëkkee liggéey am na ñu am na ñu koy dëkkee mbirum rab rab dana fekk ko oomal mu yàq waaw moom naturel moom yàq la moom cat dana fekk ko oomal mu yàq ñoo bokk même liggéey ci nit ki hmm. liggéey dana fekk liggéey bi mu teg ci kaw doomu aadama dana fekk nit koo xam nekk na ca kaw mu wàcc ko daaneel ko ñett yooyu yëpp dafa am lu muy travail ci doomu aadama bi da ko yàqal te nit ki du ko xam mën ngaa dem fee ñun la cat la wala rab wala nangam ak nangam waaye dama xam ne la cat lu ko gën a bon amul hmm. waaye moom hmm. cat ak rab moom ñu yabuñu ñu général ku ko xëy see sama kër doo ko gonto waaye yow sama maam dañ naan yeewu nit indi mën a tekki leen <laughs> léegi ni ci suuf sànq hmm. kin fi takk andi nga xam ne Louga la jógee. ba muy dem moo doxal boppam. Mm-hmm. loolu seen mbir la. waaw waaw ak ku leen xam. man tund janeer laa dëkk. waaw bàyyi ma tar xaat xam na ni. billaahi mm-hmm. wallaahi mm-hmm. seen mbir la. dama wax la mbirum cat ku ma baa muy mbirum rab ku ma sonal baa liggéey boo ñëwee boo fu ñëwee tàkk sama kër. booy dem Dakar foo mën a dem. nit ki mën nañ ko faj ci cat te duñ ko faj ci rab bàyyi ko mu dem. waaw mais nag doom yaramu doomu aadama dafa war set. waaw ba noppi saf. ba noppi wex mhm. na nag ñoo xam ne dañuy décraser wu seen live bi mhm. fekk ñett yi nekk seen mbir ba benn taxajuñ ci ñoom muy cat kepp ba muy muy darab kepp ba muy mbirum liggéey kepp ñu décraser wu nag ah man décraser wu na sama live parce que mënu maa fëgg benn bunt bu mu ubbeeku nangam la yoon wu dem fekk mhm. moom la la téy buntam la mën naa doon sax deux cent saraxam sëñ bi lay fajee la loolu moo sama secret la mën naa koo faj ci poftan xobi poftan wala doom bi doom bi doomu poftan maa koy toj boo ñëw ma bind ci samay aaya def li may def ñaar lay doon. Mhm. jox la cangat gi nga toxaw ci kaw mu toj nga sangoo saafara si bakka. <laughs> sëriñ Mbacke <laughs> xam na ko nga taxaw mu ni boof toj nga sangoo saafara dem bakko fa da nga jéggi rek moom mbir seet nga wecc loolu laal mu ubbeeku wër sa kenn dul ko ëbbale. Mhm. waaw maa la ko wax bu ren saa nga gis koo xam ne yoonam day leer ràcc ba muy ndaw. mais carrière am xaalisam benn at la toll ñu ne ah amoon na ko fi de. amoon na ko ay waaye ndeysaan ak ko bari la woon. billaahi waaye léegi de ndeysaan. xam nga lu koy waral. Hmm. rab dana ko waral cat dana ko waral doomu aadama dafa war di fonku saafara ci yaramam. waaw yaram de dafa war a neex. dafa war a neex. Hmm. dégg nga hmm. diw moo dégg rek am na lu muy diwoo. waaw Sëñ Fall dayoo ko waxoon la ko waxoon de. wallaay dëgg Sëñ Fall nee na diw moo muy dem. ñu naan diwa diwa diwa diwa diwa. bu maytul moom danañ ko diwu dugal ci biir bàmmeel. waaw baa ñu takk bu takkul ñu takk def ci biir bàmmeel dëgg la de doomu aadama dafa war a ñemee ñaan lu ko. ci hmm. investir ñaan amul njëg. man li ma jaaxal nee naa baadoo yi rek a fonkul ñaan <laughs> mais borom millions yeeg borom milliards yi. Hmm. duñ ko foyee. gis nga mbind mi nga fekk. Hmm. mbindum cinq cent cinquante mille la. mu ne jëmu ci man da ci nit ñi la jëmat. cinq cent cinquante mille sëñ bi lii. lii ne lii benn nit moo ko moom. non lii ci lay faj. waaw. waaye am na benn mbind moo xam ne moo ngi toll ci trois cent soixante mille sama saafara bopp la. sa mbiri bopp la yow général. waaw loolu pour cat la. yeneen trois cent mille bokkut ak yi nga xam ne pour mbirum kii la loolu pour ubbeeku la damay wax ne jar na lu ne kuñ ci lii mbirum cinq mooy ñu góor yi nga xam ne massification mu national wala nangam. waaw waaw waaw seen garab mu nekk. wet di mballu. waaw waaw. te ko góor defee noonu la ko jigéen defee mais loolu rap la aussi. waaw dama la wax benn affaire. Hmm. am na yoo joo yoo xam ne bu ma la ko wanaloon fii danga nga naan déedéet dafa am benn waay boo xam ne ñeenti soxna la yor. Mhm. Euh, waaye ñaar ñaa ngi Italie ñaar ñaa ngi fi senegal am na benn 4 x boo xam ne benn focus la moo ko moo ko fi indi barki dem jox ma ko addee suñ Tuubaa. Mhm. kilifa la nag dëkk boo ma ne jëwriñ la fa sax laay wax waaye buur dara gënul metti ci kaw suuf nga wéet ak say soxna ba pare baleen fi yéeg ci kaw téye sa awra yi ko fa waaw loolu yéeme na de. nee na da koy def moom ba pare di génn ay rangoñ di jooy. wallaahi asim wallaahi wallaahi lu doy waar la. billaahi wallaahi wa yàlla mi ma tim xam na ne ba ma koy joxee la ma koy jox mu jàppoo ko la tàggoog moom ba faw ko mu ñëw Sénégal may ma da koy jàppoo comme ni muy jàppoo. da koy jàppoo ñett la ñett kiir lay doon. benn bi da benn bi nga raxasee ko sàkkara benn bi nga jàppoo ko tàggoog mbalu ba faw mais loolu day dal jigéen. ba bari na ci te ma xamal la ñaar conséquence am képp ku koy def problème rein waaw la de képp koo xam ne yaa ngi ko def bari wax na ñoo xam seen awra yi day dem ba tuuti day dem ba dellu yaa ngi dégg mm-hmm. te bu delloo néew kartan mm-hmm. euh, yemul ci loolu de new kartan moom moo ci gën a te gis nga loxo yi dafa am ay tooke yu ci ne waaw esterme bi nga xam ne yaa ngi koy génnee boo mbal la ba noppi moom la rab bi di jëfandikoo ci sa kaw te doo ci bàyyi xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko tere moo tax ñàkk dana la dal yow mi koy def mm-hmm. buntu wërsëg dana la dal yow mi koy def jigéen joo nekkal ba pare matt sa loxo baa nga sëgg jooy te doo xam lu ko waral yow mi ko def jomb la néew kartan ba mën a ko dara mën na laa dal moo tax lii nga gis nii mbindum 550 mille yàlla matim xam na ne semaine bi nii day jeex takk semaine bii nii day jeex takk sëñ bi lii day jeex ci wàllu nopp man laa jëm waaw li tax ma nopp intéressé ma uh-huh. dafa intéressé nit ñi uh-huh. waaye ñi ko mën it bariwul ndax noobu vingt quatre heures laay dégg man uh-huh. ak noobu 48 heures. Mhm. ak noobu 72 heures. Mhm. loolu nag jaaxal na ma ak mhm. nit ak ni koy sunu borom bindee. est-ce que loolu c'est faisable lu mën a nekk la. non cosaan la. ni siti amee jàngoroy kajoor. man naa ni nopp kajoor la. gis nga rasulullahi mi. sallallahu alayhi wa sallam fas na soxna soo xam ne ba mu ko bëggee mbokk yi lànk da nga ko gëlëmal da nga ko nopp. noot tubaab ak noot ku ñuul bokkul ñu leen liggéeyee. gars yi dañ ñu tubaab ba gën a naqaree. ñu gën a naqaree nopp. Hmm. waaye nga toog nii rek toog ak man ñuy waxtaan man mën naa la jàppal ni ki léegi. fii nga toog. te doo yor dara. ankay. waaw ah. da toog muy liggéey. bu ma noppee ba jox la ko boo koy fas sa ndigg di ko jot jox ma percal bu weex bi. nopp dafa ay baat. Hmm. boo liggéeyee nii. ñetti fas fas ñetti lay doon. Mhm. dugalal sa baaraam. Mhm. nga wax kun bee fay bu mu am basmala ndax du alxuraan. kun. kun bee fay. waaw yati fay yati manaxa fay. yati kala kala yati kala yulu kunteeta kullu junjanta yata fay sin bonor yati maluta jinni sub xurun kununtur jinni kamaran san jalu san ba jalu iblisa abada vraiment boo nga wax li nga wax na xeetu parfum boo xam ne mu ngi nii nga ñëwaat kun bee fay yati fay yati mën axa fay yati kala kala yati kala yulu kunteta junjanta yata fay si mbunur yati maluta jinne subxurun kununtur jëna kamaran sañ jallu sañ ba jallu iblisa abada booma booma mhm. na jaar penk mu jaar soow liggéey ko fas sa ndigg toogal ñuy waxtaan <laughs> bu dee nopp képp la muy digg barke mu fekk la fi ne nopp nag billahi lazi laa ilaha illa huwa bokk naa ci sëriñ si ko dàq fii ci kaw suuf di wax di wax ju bari jaadu na <laughs> bari woon na sëriñ yoo xam ne ñoo ngi wax nopp nopp naa leen wala bari woon na sëriñ yoo xam ne nopp nopp nopp nopp yombul bokk na ci li gën a jafe ci ñaan mook bay rek mm-hmm. te nit ñi da nga ko yombal mook bay yombul waaw waaw waaw defal nit ki loo xam ne ñëpp koy jublu ba noppi sopp ko yombul te gis nga nit dafa war a neex ba xoolee loo yor mën nga ko jox waaw dëgg la maa ci ay nag waaw wala wala xool ni kërek sopp ko barke borom Touba ah, mën naa la mën naa la jox loo xam ne boo ko sangoowee jur bu ne asalaatu xayram na noonu ba noonu julli fajar ni ba sete ba kenn ku ne uti wërsëg ku xëy ci yow la jubal la ma yor fàggul ko dana la ko jox doo doon dara sa kër rek <laughs> muy président muy ministre muy keneen ak keneen waaye boo dee politicien kenn bëggula la rek booy woo bay rek foo jaar bëgg nañu topp la ñëwul sëñ bi noo def fay coow maa ci ay. yaa ay ak mu coow li mën a toll. yaa ay xel mu dasiru xum fa asir. ubbil ma xum gi rek ma liggéey li may lekk na Sénégal gépp noppi def ko totoog defal lu la neex kenn du wax. ak dégâts boo mën a def. moom. <laughs> bu dee layoo nag la xëccoo layoo. <laughs> buur ne <laughs> barke borom Touba da nga dugal ci lu nekk rek. man non man xam-xam laa yor déedéet xam nga. wolof dafa ne kuñ ni sa baay jàmbaar la. waaw nee na nee na borul jàmbaar sax war ngaa. gis nga nob bi ngay noobee nit ku ñuul nii. Mm-hmm. mooy percal. bu dee ci percal boo xam ne bu dee nit ku xonk lii nga koy noobee. bu xonk bi laa koy noobee bu dee tubaab. ne ko kirtin. patron tubaab jabaru tubaab la. bëgg dem am naa ma ci liggéeyal mu ngi nii dama sant ko gërëm. Mm-hmm. bu la neexee léegi mën naa la ko tegal. Mm-hmm. bu dee embauchement rek nga bëgg ci moom fële moo xam États-Unis nga ne wala Belgique wala fu mën a doon tubaab bi noonu lu ko neex dem nga liggéey jëlu la fexe la xam turam. kese doo fa yàgg. jarul turu ndey jarul turu baay. barke borom Tuubaa doo fa yàgg. yaa jalka yaa karamat daamu tilka jaajaa kose allahuma yaa jal jal Muusa batootaa faasi wax laa koy jàppe ni ku kirtim tee tee liggéey ba defee may def ba ko def samay xeeti parfum fexeel ñu jox la ko GPR nga takk ko sa ndigg ñetti fan foo ne mu embauché la sëñ ñu noo def ak wàllu maa ci ay fa soo fa yonga sa boog hisaaban yasiiran juróom-ñaari képp laa koy liggéeyee turu fa nga sàkku kayit naa ko xam boo koy dépose du la rejeté. bu dee visa la. barke borom Tuubaa da nga koy am. bu dee séjour nationalité. da nga koy am léegi incha allahu taala bu neexee suñu borom buur. waaw yow day. dafa am loo xam ne loo ma wax ci ñaan dama gëm. dafa loo xam ne dafa am loo xam ne suñ tubaab ko génne ci làmmiñam. bi Allahu taala sànni ko suñu maam. lii la ñu mm. fàggul ñun ñaan. waaw waaw waaye ñun ku ci demoon sax. di emballage ba ba ba ba ngay mas baa ba nga yor ko ba ngay commerçant di dem amoon naa mag ji fii. ñoo bokk ndey ak baay ba mu jógee daara ja euh, <laughs> kee la <laughs> kilifa ko fekk ni ko sa maam fàggul la lii. wallaay dëgg dama def la nga war a def. Cheikh Khadim daan na wax naan yéen de waa Njare Njare ñooy docteur docteur yoonu mu. ni la. Mhm. ñaan barke la. def na topp ñun. Mhm. na ko ci nday ci baay. moo tax lépp lu ma ciy wax nag. ba doomu aadama di ko dégg mu di ko yëm. Mhm. ko weddee na ñëw toog fi waaw ah, ñu jëflante. barke borom Touba. waaye koo xam ne aajo nga am ñëw fii ci général tas bu neree tas doo ma jot. mbaa doo ma gis xalaatoo ko ku rek incha allahu taala dawal yaakaar boo ñëwee du tas yaakaar dafa tase mukk mm-hmm. waaw fi mm-hmm. fii mooy kërug ndimbalu yàlla gi nasul minallah walay nasul minallah mu ngi noonu fii mooy kërug ndimbalu yàlla gi mm-hmm. général suñu soppee suñu xarit eh, waajuram di ko Sénégal yëpp sopp nag wax dëgg yàlla di sëñ Assane kan borom nasru mm-hmm. eh, ñu di ci ñaanal suñu xarit ba ma mbay eh. yàlla na ko yàlla sunu borom xare ko xare ko aljana mm-hmm. moom tamit góor yàlla ñaan kante léppam nekkoon sëñ Assane am na am na ngërëmal yàlla mm-hmm. ndax ma mbay waxtu wi tembe bu màggal Tuubaa jigéen daawul am jàmm ci jëfal sëriñ bi waxtu yi daana fekk mën mu yeewu ay nagu màggalam baax fas yéene ko jëbal sëriñ bi sëñ Assane barke dem ba dajal na lu toll ci ay nangam de million dimanche bii nii dana war a dem daara Jolof jënd nag liggéeyal Sëriñ Tuubaa hmm. moo ne si ñasa na koy def maam lay wàlli wi la woon jàmbaar dëgg la woon wallaay jàmbaar dëgg la woon ndeysaan kon ñu ziar sëñ Asan Kan borom nasu di ko ñaanal sama borom sàmm ko hmm, hmm. te defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim waaye di ko ñaanal suñu jàmbaar ji général dañu wax ni doomi ñay dee su ko ñaanal rëy des ko ñaanal gudd fan mhm. ndax bu guddee fan rek dana dana rëy mhm. te wolof dafa ni bu dee li ci kopp bii dëgg la mhm. kon wallahi li ci ndaal yi dëgg la dëgg la kon sëriñ bi ñu bàyyi la nga tàggug ñu lay seetal laata loolu jigéen ñi nga xam ni buur bari nan amuñu jëkkër waaw amuñu jëkkër sama classe gi leen ci yaakaar te man fi mel ni bukkale na lii moom dama leen koy baaxee rek sénégalais gi jigéen joo xam ni yaa ngi sàkk boroom kër amu ko jaar nga fu ne ñaan lu ëmb ko. Hmm. utal dugubu bësi. bësi. nga boole kook mboq. boole koog gerte kemb. donte deux cent deux cent nga ko jëndee baax na. Hmm. boole koog ceeb. fexe ñoom ñëpp nga def ko ci bool li nga am ci ay at muy vingt ans vingt deux ans vingt trois ans ba trente ans ut ko ci ay bekk suukar boole leen ñoom. koo njëkk dajal ci bindkat ne ko bindal aaya wala tam duna xëy nag. illaa ma matax naa bihi aswaajan hmm. aswaajan googu laa soxla li mu yow li nga am cee at. Mm. sangoo ko xëy loolu saraxe ko semaine laa la may ñu indi la ñu indi barke alxuraanu karim. waaw <laughs> ah, kon kooku may naa ko mbokk jullit ak taalibe yëpp rek. Eh. yéen ñi bëgg borom kër te jotoon na général jëfandikoo leen ko. daan ko ko bay même góor gu bëgg soxna te amoo ko it def ko. célibataire classe gu waagaan. <laughs> ku ko ñu def dana baax. allah suñu kontaan nañu. waaw ñoo la gën a kontaan nag bëgg loolu nag. incha allah maa ngi wax naan. réew mi réewu jàmm la. waaye ñaaw teef yi bari na fii ci réew mi. na xam ni dëkkub lislaam la. te dëkkub yaaram la. Sëñ Tuubaa dafiy liggéey liggéey bu rëy. ba tax kenn ko ne la ngay def nga tal ko à grâce Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. xale yi nga xam ne ñoo ngi dund ñaawteef. ci réseaux sociaux yi ñu di ko wax ay la motif mm. lépp loolu def na ngeen xalaat seen ndey ak seen bàyyi mm. ñaaw na trop mm. waaye ndey joo xam ne bëggoo ñu def ko sa doom ba bàyyi boo xam ne bëggoo ñu def ko sa doom joxoon joxoon naa secret utal biteelu keren rek nga ubbi maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim nga yor sa kurus nga bàmm ko 111 ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim nga tegu ci yoon téeméer fukk ak benn ihdina siraatal mustaqima ihdina siraatal mustaqima bu 111 matee nga ne Fatou Ndéla Ndey Kumba yow mii di xari yaa ngi dégg bëgg naa ngay juboo te xeetu ñaaw taf yi suñu maa ngi la ñaan nga musal sama doom te teg leen si siraatal mustaqim ba pare tifle ko ci bidon bi rek àggale aay bi siraatal lazina anamta alayhim xayri maxduubi alayhim nga tëj bi dencal sa suuf rondal jub rek la ñuy def. jarul ñu di ko naan jarul ñu di ko sang. déedéet déedéet saa soo demee ba njaboot ko jaxasoo boo ko yëngalee rek tegaatal. ñëpp rek la ñëpp rek la incha allah. <laughs> dax waxum fiya subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiya salaam. wa aqiru daxwaahum an alhamdulilahi an alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf.